lu bëri ngay def ay ay euh, ay prestation mhm. ak yeneen euh, artistes yoo xamante ne ay africain lañ mhm. mën nañ ci lim ku mel ni euh, Burna booy mhm. mën nañ ci lim Fally Ipupa wala Angélique Kidjo ba ci Toumani mi ngi Toumani Touré ki Toumani Diabaté mi nekk Mali waaye seetlu bi mooy que gisuñu ngay ngay faral di def lu lu mel noonu lu bëri ak artistes yi nga xamante ne ñoo ñoo nekk fii fàttalikul bari na de yu ma defal def ak artistes yi fi li xew mom moy ang koy sante yalla parce que man dama mës joxe cieur man par exemple bu bu ñu ci théâtre sama papa dur ndjay kumbaros yalla nako yalla yàlla xare àjjan bu dugg see damay jog taxaw xam nga ku dul joxe cieur do am cieur tay Afrique ak xalé yi ak fii ak fépp ñoo ma jox cër boobu moo tax euh, suñu amee lu mag te sama calendrier may ma ko damay ñëw màggal leen encouragé leen loolu moo indi yooyu yëpp ndax képp ku ci euh, bu ku ma ci soxla da nga taxaw képp ku ma ci gis da may jox cër boo xam ne que jéggi na dayoo euh, ma ciy sant yàlla bu baax Euh, di ci sant yalla en tant que sénégalais di ci sant yalla par rapport ak sama liggéey ndax nak euh, ñun yag nañu doxal musique africaine depuis ca World Music yàgg nañu taxaw pour wax ne ne que futur bi mom moy musique africaine ñom suñu démé ba nga xamé ni xalé yu ndaw yi commencé di am ay succès yu am solo tourner ñu wax leen kan moy sen référence ñu ne Youssou Ndour sant yalla waaye nak lolu euh, du luñu tabax ni rek dafa yàgg nekk fi donc suñu rôle moom mooy yatal bu baax a baax encourager les bu baax a baax protéger les aussi ndax musique jouer ko lenn la protéger ko lenn la sur les droits sur beaucoup de choses yo xam que pour que quand même mu am pour Afrique encore une fois donc lolo la nek, nekk nak nag duo moom man Ibra Kassé ba man nekkee ci Ibra Kassé Star Band de Dakar xale bu ndaw foofu lan la ñu jàngal xam nga mooy lan da ngay woy benn morceau après nga tourner dem ci micro beneen bi di awu sa morom man loolu service boobu laa jàngee donc loolu laa xam moo tax ah ñi ma woyee ndool fii bari mhm. waaw ñi nga xam ne ni def naa ñoom ay duo fii Sénégal dañu gaaw a fàtte rek bari na Euh, te euh, lañ ma donc partager. Mhm. échanger why affaire ñak fayda du ko def affaire lo xamé ni que gëmuma ko du def lég lég nit wax ma musique wala dara ko jarul nga koy commenter musique bi wax ak man ma réagir c'est comme ça que je fais et vraiment di bu musique euh, ah, ba reconnaissance bi mi ngi noonu. Mhm. mi ngi noonu. waaw baax na kon euh, li ñuy def rek dañuy. Euh,